comme ni ma ko waxee sànq nii rek euh, tey di finalu coupe euh, bu Ndindi euh, ñu doon def chaque année su taxawee jeunes yi nga xam ne dañu nekk ci commune bi te affilié wu ñoom ñëpp doon tëgg nawetaan yi dañ leen di subventionné équipe bu ne dañu la daa def ñu solol la jeu de mayo jox la bal vraiment mu doon loo xam ne ren gis nañ daaw bi ñu ko tàmbalee it ren équipe yi dañu gën a yokk vraiment mu doon loo xam ne nii tey jeunesse su Ndindi ñoo daje fii di santaat bu baax a baax commité d' organisation bi nga xam ne tey bi ñu ñëwee ba fii ñoo organiser te organiser ko ci jàmm ak salaam nga xam ne noonu la ko ñëpp bëgge képp koo xam ne yaa ngi organiser ay nawetaan la ñu cay sàkk muy ñu def ko ci jàmm ak salaam bu ñu dikkee ba jour final bi nag lañu man ñun ñu am ko ci sunu kamtalaay kàttanu bopp dana nu ko bokk ak ñoom équipe bu ne ñu jox la jeu de maillot jox la bal ñaari équipe yi nga xam ne dañu final ñu jox leen cent tickets yi nga xam ne nii moom la ñu kenn ku ne cent tickets yoo nga xam ne moom lañu war a mën a dugale seeni seen euh, i jàppale comité d'organisation bi ci cinquante mille francs loolu nag comme li ma ko wax sànq am na loo xam ne nun ñu ko manee ba di ko def dañu koy sant notre ministre de tutelle muy le ministre Dame Diop nga xam ne démb heure bii démb ma nga Touba Lappé parrainé coupe bu Touba Lappé li ñu def fi mu def ko Touba Lappé yemu ko it mi ngi koy def fenen diko def fenen ta japp na né dans tout l'arrondissement, dans tout le département euh, le ministre Dame Diop est présent foofu donc kon li ñi ngi koy santat bu baax waye may delluwaat di remercier jeunesse su Ndindi di len santat bu baax pourquoi parce que lu melni tay buñu ci ñu ba di ci dugal suñu loxo rek sen comportement moo gis nañ ne bu ñu toogee ba benn moment bi suñu doo amee lu ñu war a jàpp ñun dañ cay taxaw jàpp ci ak ñoom mat sëkk donc maa ngi santaan ñëpp di gërëmaan ñëpp di wax naa ne final bi dinañ ko fubal tey ci ngoon nañ ko fubal ci jàmm ak salaam ba bu ëllëgee it ñu mën a am cawarteg lu mel nii ñu defaat ko fi. ren li fi affilié woon douze équipes la douze équipes yooyu yëpp kenn ku ne jox nañ la jeu de maillot ak bal jàppale comité d'organisation bi en enveloppe.

activité la boo xamante ne nii nice na parce que du nekkul première fois mu def ko fépp foo xamante ne woo nañ ko fa wuy si nañ fa wuy si nañu foofu vraiment yaakaar naa bu ñu gënee jàq boobu lañ ko gën a soxlaata boobu lay gën def différence vraiment merci Mara merci Mara encore une fois merci.